juróom-ñeenti at suñu waa ji topp ci ginnaaw doon ko juróomi at moo tax fan yii su ma naan Habib rek damay tëb ñaa bi damay juum nag maa ngi jébbalu ci président Habib ñaa di ko remercier di ko féliciter par rapport à cette activité là réussie lii moom. weddi gis bokku ci ña doon wax Habib yoru ko man seede naa man Lamine Aïssa Fall Habib yor na ko waaw may wax ne may wax ne tur wi du Lamine Maysa Fall Lamine Aïssa Fall la ndax sama yaay mooy sama turandoo kenn mës gis loolu ah ñu ngi sant di gërëm cant ak ngërëm lu amul ab son excellence monsieur le président Mahammed Boun Abdallah Dionne ci tànn gi mu ñu tànn dénk ñu région de Thiès Mbour Tivaouane ak Thiès ak li ko ëmb loolu mbégte mënu koo weesu loolu bég te doomi jaxaaw jaali bég nañ doomi Thiès bég nañ may wax ne doon nii tool may ma ma ñëw may ma ma ñëw ma ne doon nii tool doon na ay tool taxut a mën a bay xam nga suñu réew mi dafa am luñ ci doon bañ parce que dañu waxoon du ndono en 2012 loolu lañ doon xeex ñu ne réew mi kenn du ko doon kon tey jii du ñu nangu. benn waay jóge fale ab transhumant ñëw këf suñu parti doon réew mi duñu ko nangu kon ah transhumance moom yàgg nañ ko wax waaye léegi la gën a am sol léegi na gën a fës te duñu ko nangu monsieur le président Mahammed Boun Abdallah Dionne Thiès vous dit qu'il n'y a de destin que celui qu'on se forge dëggalal sa bopp Sénégal moo la soxla nga taxaw ñu ànd dox jëli lii ñu moom muy dugal la ci palais la république incha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye du ma jeexal du ma jeexal ndax aujourd'hui cette journée cette activité fera date l'histoire retiendra fii le président Mohamed Boun Abdallah Dionne tàmbalee lancement parrainage am li koy yóbbu maanaam maanaam li koy yóbbu pale waa Thiali waa Jaxaw waa Thiès ci ginnaaw président Habib Niang ci lañ ko tàmbalee kon nag fii mooy waxukaay bi dama fi suma benn rak mu doon jàmbaar ñëpp xam ko mu nekk ci ginnaaw président Macky Sall di ko jàppale boobu muy rakk ñu jàmbaare ñu koy wax Mamadou Lamine Massaly Mamadou Lamine Massaly fii ci Thialy du haut de tribune ci laa lay tàllale loxo au nom de son excellence monsieur le président Mamadou Abdoulaye Dione ne leen fa nga nekk yoruñ ko ñëwal ñu liggéey li nga bëgg ñoo ko yor li nga bëgg président Mamadou Abdoulaye Dione moo ko yor ñëwal ñu ànd jëli ndam li ñëwal ñu ànd jëli la ñu moom ñëwal ñu ànd gunge son excellence monsieur le président Mahammed Boun Abdallah Dionne ki nga xam ne du milliardaire du milliardaire damaa bëgg ngeen koy fàttaliku yor na réew mi nekk ci ñi gën a ci réew mi lu ko neex mën lu ko fi am ci milliard waaye doonu ko ndax maanu loxo yu setam loxo yu sellam kii moo neex àndal kii moo neex a gunge dañaay lay sefe asalaamu aleykum wa rahmatullah juróom-ñetti at mi ngi ànd fi nekk demuñu fenn boo tourné xool di nga xam ne kii nu mu tudd kii boo même ko xamatul di nga xam kanam bi di nuyu sama tante yi sama rakk yëpp sama bàjjen di sama instant boo xam ne tey macha allah bu Habib Niang dugg si pax ñu dugg si pax. maa la wax loolu. di sama jeunesse li may faral wax mooy ñun suñu wax bëriwul ñit comme ni ko américain waxee américain am diplôme def ne wan nga loo mun def yoon dañu xam ne Thiès ñoo ko dee si loxo. waxal waay président. juróom-ñaari at avant ngeen bam maa ngi nuyu délégation bi xam ne tey ñu ngi jóge ba Géejawaay jóge Pikine di ne président fooy woote si Sénégal il faut que délégation ñëw fi maa leen bu baax baax délégation yëpp di fi teew a Dakar di leen sant di leen gërëm di nuyu une forte délégation bu xam ne moo jóge ba Matam démb nañ ma woo ni ni ma dañu dégg da nga activité Thiès ma ne ko nag comme noonu xamee man at bu nekk lenn mooy sama yitte ndeysaan sama parents yi sama waajur yi sama yaay yi année scolaire ubbi na il faut ma lijjatale ay fourniture man moo ma tax a ñu ne ma ah ñun de il faut que di police bi gontu ñëw ñu ñëw assister événement bi comme dañ ñu yónni woon en de parrainage ñu jëli si en couleur liggéey si. comme dañu wax ñu ne Fouta moom mooy titre foncier du président ah yaakaar naa ne yéen bu Abdoulaye Diop dafa dugg de. dina dugg Thiès rajo Thiès commencé na ko et puis lu gën a mooy lu gën a waar mooy. dañu jël bés bu xam ne te jour ouvrable la alxamis ñun duñu xaar ñun heure bu ñu bëggee tëgg Cees lañ koy tëgg. ñëpp dina wax ñun xam ngeen temps yi ak nawetaan ak nawet bi man dama am yërmande sama jigéen ñi dafa am fu mu leen teg moo tax man leen di jëm esat mañe sumaare nañu yem tee rek nga xam ne tey bu tawee rek nañu laax dugg fii ñun ku ñu xam xaj ñu si saal xaj ñu même si estade et puis di baal ñu nekk si biti amuñu place si biir di remercier ñi fi ne yëpp moo ne saaf macha allah depuis barki démb ba léegi nelawuñu ma allah sama jigéen ñu baax yi nekk si affaire yi yakaar naa ne tey comme noonu ko xamaa dafa doon cérémonie boo xam ne dama ko yàgg a baaxal di ko def mooy joxe politique scolaire sama jigéen ñi macha allah ñi nga xam ne fu Habib Niang wax wii ñu ne wii waxee non ñu ne non. nga dama tase benn ma expliqué leen benn proverbe dama tase benn femme mu ne ma président man de jànguma ma tudd si informatique. mu ne est ce bi nga waxee demoo élection ñun ñëpp dañu déggu entre nous ñu ne bu kenn voté dañuy fa président bi ba mu ma ne wax ngeen dëgg ma ne man mii nag góor laa. man damay voter loolu yëpp xamoon naa ko mais ñi da xam ne teg ñun nag dañu xeeb Cees xam nga ñun suñu wax bëriwul du ñu dugg saa ay polémique mais yaakaar naa ne ah bi yoon Cees dina xat de bi yoon Cees dinañu xam ne kan mooy boromu Cees lenn laa leen di ñaan mbokk yi gis nga def bi may di tey ku am choléra nitam la man joxuma dërëm sama baat ci kaw ku am conviction ku bëgg askan ku moom boo ko fekkee nga baal ma pain président dafa doon ñi bu xam ne ku modeste boo ko fekkee këram taalibe la moom moo lay ataaya sax messe 3 ñun jour boobu ni ngi doog ñu tuddoon ànd lan ànd safar Thiès ni mobilisé cinquante deux ñoo taxaw jour boobu sax de président fi mu toogoon si ñu jigéen ñi macha allah ñoo doon tedd ñoo doon koom foofu ñoo doon rangé siège yi man maa taxaw ma ne président problème au niveau de Gourkat ngi fii dañuy fex rek la problème le président jël kàddu joxe instruction ñu rek ko séddoo nañ ko ñu dayee ko ñu. mun naa lay waata si kanam yàlla aw si benn mètre carré seddoo nañ ko jë dina jëriñ nañu de mais ren dinañu xam ne Thiès am na borom. yaay borom Thiès. ñun duñu jënd ay militants duñu jox kenn paas ñi fi nekk ñëpp dama leen yar si conviction ak dem-dem fii ay boo xoolee ay babu jëmm ñoo fi nekk yor seen carte. monsieur le président yow de bu soobee yàlla gis nga fii Thiès fal na la ba pare booy koy garaw dana am tey tey doon nañu def comptabilisation bi si wàllu parrainage yi ñun yaakaar naa ne li ñu jot tegu si bi sama baat ci kaw sama loxo ci kaw amul kenn ku xam ne tey leader nga si loxo 30 000 signatures. foo dem nga vérifié ko xool ñun dañu am base de données dañu liggéey suñu base yore suñu cellule yore ay jeunes ay ndaw ay mag xolal bi ngay dugg si Thiès xolal du la borom saret yi si dugg mbooloo mi nga njëkk di lu ñaata signé te jox ma ko yaa ngi seet ñëpp di ngi seet la presse di ngi seet lii ba président lii ko teg sa loxo tey mën nañ jox seen fiche yi waxatuma nag waa nga lii am fii bu ñu paree Géejawaay dañ jëm de Géejawaay pare nañu dem Parcelles Assainies mën naa leen ko wax nit ñoo bu ñu paree nag dañuy dellu fii nga xam ne maanaam foofu laa cosaanoo ñu sutural di remercier de passage tous mes partenaires yoo xam ne ñëpp nag état ci ñëpp bu Habib Niang organisé don de fourniture di ko ci seen loxo maa di sant di gërëm yaakaar naa ne maa ngi sant yàlla man aw doomu Thiès doomu Thiès laa màggee Thiès sama jëm yëpp judd Thiès sama titre foncier nekk Thiès. mais nag comme ñun mouvement national la ñu am et ma wax la benn yóbbante monsieur le président démb macha allah bi si émission bi jàllee gàcce gàllankoor ñëpp si tey yëpp seetaan nañ la dama jot ay yóbbante jóge ba Qatar ay arabisant ba Mauritanie tey mag bi mu amoon problème rek ba Podor. ba Diouloulou sànq nag le président des jeunes ba ba ci Sédhiou waa Sédhiou waa Casamance l'association des valets ni ne ma dina indi sa parrainage semaine prochaine jël naa ay fiche tey lu mot ay junni fiche séddale naa ko jël tamit jigéen ñi gis naa seen taxawaay si wàllu parrainage yi leen bu leen kenn parce que ñun amul lu dul sa carte carte mooy seen gor xoolal Thiès ñu ko négligé est-ce que Thiès am na est-ce que Thiès am na DG. xool leen démb remaniement bi dañ def ana Thiès waay li wax leen Thiès waay dañu war a am jom xoolal seen bopp ni bañ a ku leen fontoo Thiès waay góor nañu Thiès waay mooy fal deuxième ville du Sénégal xale yaa ngi taxawaal xale Jakarta xale yaa ngi taxawaal di jaay café Touba c'est pas irresponsable c'est pas normal dañu war a teg jeune bu xam ne xam na la jeunesse lu war sinon aussi di profité tamit di lancé ki nga xam ne mën naa wax moom mooy géwél président dam koy faral di tooñ ku wax rek mu saaga la déconné mooy masa mooy masali tamit masali nga xam ne bul kenn ku wax ku wax président rek mu saaga la wax ma ne ko Lamine ñëwal fii mooy sa place si bun Abdoulaye Dione mooy sa place ñëwal nga wuy ko maa ngi lance aussi le message de maître Malick Sall wuy si le président bu Abdoulaye Dior kii ñu bëri defar na leen ñu bëri formante na leen ñu bëri jàppale na leen ñi day gore ñi day gore day xam place am ñun nag ku la joxul sa place nga xam sa place te jox naa leen seen place bu mu leen respecté wul woon du ma déglu madame soxna si du ma déglu aw tamara du ma déglu ndaak du ma déglu mam Dieng du ma déglu kenn fi am ñaa woote pare ngeen di sant bu di leen gërëm di la baal taxawaay bi toogaay bi yàgg na Habib Niang bu leen togg bu toggal fi ba minuit di ngeen ko toog déglu déglu léegi nag dañu jëble si lii nga xam ne maanaam damay sant yàlla si bu baax alhamdulilah moom ma taxoon ne la guddi ba cëg mooy fourniture yi ngeen seetee joxe nañu lu mot yaakaar naa ñetti junni ñetti junni kay ak bi di ko sama macha allah sama jigéen ñi toog nii ku si nekk lu mu dee dee yore lu mot ñett ñeent élèves yu jàng lii nag du dara ku nekk ak sa doole fu mu yem man aw ma ku dul damay wax ñi day gore ñi day xalaat démb ñi day xalaat kii tey bu ko yàlla dooleeloon tey du ma sonn du ma xiif. démb rek defe naa ne waxtaan naa ak Sénégal démb ñëpp seetaan nañ tey damay tënk lii ma fi gis kontaan nañu Habib sànq Madji Pro woy na ko mu ne Habib boo fi nekkul woon mu ñaaw loolooy dëkk heureusement yaa ngi fii Thiès nekk fii Sénégal def le choix de la justice de la coalition Dionne 2024 Dekkal Jàmm pour un Sénégal juste dañu ne suñu coalition mooy Dionne 2024 Dekkal Jàmm pour un Sénégal juste dañu ne Dekkal Jàmm lu tax réconciliation la ñu woote doomu Sénégal bi dëkk bi tarixa bu ne doomu Sénégal boo xam ne religion bu ne doomu Sénégal bi dëkk bët gànnaar ki dëkk soow ki dëkk penku ki dëkk ci sud bi wala bi nord ku dëkk fu ci réew mi ñëpp ànd ñu ànd continuer liggéey ndax fekk nañ fi liggéey mais avant ñi taxaw ah réew mi ba léegi mi ngi dox yàlla defal ñu jàmm jàmm jooju la ñu war a consolider moo tax ñu ne dekkal jàmm bu loolu passé Habib maa ngi nuyu sa jigéen ñi maa ngi nuyu sa jigéen ñi ay jàmbaar maa ngi nuyu jigéen ñi mouvement ànd suqali Sénégal maa ngi nuyu la jeunesse de Thiès maa ngi nuyu les jeunes du mouvement maa ngi nuyu artistes yi artistes u Thiès ville de culture capitale politique du Sénégal ku ne Thiès ku ne Léopold Sédar Senghor ne Ousmane Ngom ne Ibrahima Sarr ne Aynina Fall ne Boubacar Sall ne Habib Niang ne Lamine Aïssa Fall suñu coordonnateur régional fii pour coalition Dione 2024 maa ngi lay nuyu Lamine di nuyu Thiès yëpp di nuyu national professeur Mounir Sy di nuyu suñu rakk waa Ben Jalloul di chef d'entreprise bu mag di nekk nekk chef de parti nekkoon candidat mu ne ren seet si ma ne ma tonton boo nekkee candidat du ma nekk candidat ma ne ko ni ki tey yow la ñuy def suñu délégué régional pour la région de Dakar bi ñëw ñu ànd ak si le conseiller spécial numéro du candidat Habib Niang ci topp engagement bu ñu jël pour le Sénégal un Sénégal juste et un Sénégal développé de manière inclusive et solidaire loolu nag bu ñu nuyoo ba pare c'est Habib suñu rak suñu xarit dinañu fàttali fàttali mooy ku ne Thiès ku ne ne la jeunesse ne la jeunesse Thiès dama ne sànq c'est la capitale politique du Sénégal looloo tax ñu ne bu ñuy tàmbalee parenage dañuy ñëw fii ci Thiès incha allah tàmbale ko ndax fii mooy capitale politique du Sénégal parti yu bari fii la ñu tàmbalee ci Thiès ah président Léopold Sédar Senghor région Thiès la defee lépp tàmbale ko fi. di lutte yu bari ci Thiès la tàmbalee moo tax ñu ne tey dañuy ñëw ci suñu conseil spécial Habib Niang taxaw ci wetam waxtaan ak waa Thiès waxtaan ak waa réew mi ah dum ci nuyu nag fàtte naa sama rak Ahmed Gueye sama rakku bopp ma doomu ndey mi ngi fi bokk ci sama délégation ak waa Gossas waa Gossas yaa ngi fii ñoom ñëpp jóge ba Gossas ñëw taxaw sama wet pour encourager ma fàttali nag dama doon wax rek ci Thiès tuuti engagement bi ma wax dem mooy engagement bi nga xam ne mooy l'urgence nationale urgence nationale wax naa ci démb mbir mi du affaire combat mbir mi affaire urgence yi la jël ko en charge continuer liggéey pour réewum Sénégal Sénégal wax nañ ko sànq ñu ne ndaw yi ñoo ko yor moo tax ma ne moo tax ma ne parrainage moom pour man formalité la Habib rek fal nañu waxantuma laaj yeneen ndax mouvement national la nekk fukki fan la dawal ci parrainage mu ne trente mille parrain mi ngi nii loolu kay gars yi dañ ne un million ñoom Lamine ay saak ay ñoom euh, waa ak ak mu niir ma ne déet loolu de démocratie nañ jël cent mille pour pour wàññi diplôme externe jël cent doy na li ci des ñu bàyyi ko ah candidat yi bari na bu ne jël sa wàll lii pour qualification la buñ ko passé qualification bi nag li ma ci wax démb Sénégal dégg na ko du bu mu doon yëf yi kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu nañ ci bàyyi xel ndax duñ ko nangu duñ ko nangu de waaw incha allah qualification bi Habib rek assuré na ñoo ngi lay jaajëfal moo tax dinañ tàmbale wax ak réew mi ci suñu vision li nga xam ne moom la ñu bëgg incha allah boo leen ñu joxee lenge yi le 25 février 2024 man li may sama engagement mooy mandat boobu may def dafay nekk un mandat que je dédie à la jeunesse sénégalaise. xale bu amul métier ñu wutal la métier xale bu am métier ñu wutal la liggéey. liggéey yomb na wax naa ko dem boo tabaxee cent mille logements nga ne ma enseignants yi di kontaan nañ ak cent mille logements yi la xaar boo tabaxee Habib nag du inspecteur du cadastre rek ingénieur la ci loolu boo tabaxee logements mais ñaata emploi la ñaata carreleur ñaata peintre ñaata menuisier métallique ñaata maçon. ñaata menuisier bois ñaata électricien kër gu ne fukki métier la un million de logements cent mille mat nga ji créer un million d'emplois xëy ndaw yi ba lañ koy wax nañu wax qualification ndaw yi métier moo tax ma ne donner un métier à chaque jeune pour qu'il se sente à l'aise et qu'il vive sa dignité là où il est né dans son loolu rek programme la mandat la liggéeyu mandat la la république avec sa moo tax ñu ne dekkal jàmm jàmm mi ngi tàmbale ci ku nekk ëmb sa sànqal wala Njaay nee na ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura xale yi nañuy toppatoo seen sutura toppatoo sutura jigéen yi ndax bu ñu ne xale jigéen ñaan ci biir jigéen yaa ngi ci biir jigéen yi xale ñoo ëpp góor yi xale 52 pour cent jigéen ñi góor ñi 48 pour cent métier du mécanique rek ak électricien yooyu sax jigéen mën na koo def coiffeuse jigéen na ci gën a mën moo ko dàq góor couturière jigéen a ko dàq góor yooyu yëpp ay métier la moo tax ma ne dinaa dekkal programme bi nga xam ne moom laa prévoiroon man ci cinq ans yi bindu ko ci programme bañ ma dénkoon di département bu ne dinañ fa tabax ay centre de formation professionnelle yoo xam ne duñ ko jéegaa ni fenn ci budget national bi lañ koy def parce que ce sera un gouvernement d'urgence nationale avec un budget d'urgence nationale loolu laa mën rek tënk tey pour xale yi ak jigéen ñi incha allah pare na leen pare na leen mu ne am nga liggéey délégué régionaux yi am ngeen liggéey parrainage dina gaaw ñu def ko suñu gannaaw commencé taxaw ci pôle programme de la coalition Jom 2024 Dekkal Jàmm Dekkal Jàmm Dekkal Jàmm pour un Sénégal juste allahumma salli ala sayyidina Muhammadin